أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أئمة الشهداء من أهل العلم ومن ويسألونك عن ياتم في الأجر أفعال الجمهور إن محمد صلى الله عليه وسلم ياتم في الأجر من اليوم ولولا أجل بجنة سنة بجنة زمن guddi guñ ci biir la jaawum sant yi di daleen araasaawum dugal ma de su taxu sona la nga xam ne yàlla dogaloon na xeetu yeneen du leen xalak ndax yeneen du buñ xalak mbidam te xalak aw xeetam mbidam te teer na te yeneen du mbidam dafay mat mooy nekk yeneen dem mu ñëw jamono ba àdduna tukki te suñ ko suñ xalak bam xeetam rek mu jeexal yàlla dogaloon na jeex ne du xalak xeetu yeneen du sallallahu alayhi wa sallam xalak ak faagaagal leen su taxu sonam loolu kon mu yeneen ñoo de wala yaatu yaa nangu xam nga moo di ka leen baax sa sant bette wala te ñoom laaj sa xamuñu waxtu di kam de yastaaju dana kat nañu yaakam si la bilaa saali ci mbugal ñu ne yaakam si nañu mbugal way na jaanama waaye naka jaanama la muy des naa ji leen dong bil jeex na jeex na dina def ñu ne yaakam si doom mbugal waaye nga sa yaakam si dana ñëw de jaanama dana ñëw te dana leen seet ci wàll bu nekk waaw nekk ci seen ay jéem ci seen kaw ci seen suuf ci seen leyjoor ak ci seen jamono war leen wàll bu nekk waaw te duñ ko mën a génne de bu keroogee te ba buñ ko sànni ci safara mu war ko dañ mu leen laaj dañ ko laaj ne ko ndax mos ngaa bànneexu ci àddina mu ne mosuma am bànneexu ci àddina de lii mosuma ci jóg nag nga xam ne ci di su mu rek danga ñu jaal jàng rek dañ ko laaj ndax mos ngaa wañ ko mu ne mosuma xam ne wañ ko rek tey de waaw tax na de ñu ngi yàkkam ci loo xam ne ñëw na ba noppi de te boo baal seetlu duñ ko yàkkamti de kéefar safara dana ñëw ndéem ko walla bu nekk naka nga xam ne safaraan ko ndéem léegi ci waxtu yi muy dund ab kéefar melaloon nañ ko démb nekku deera ab ñuura melaw yaramam wi bàmmeel la buñ ko ful rek waaye moom ab ñuura safaraan ko wër nag walla bu nekk rëy ak xañaan ak mer ñu ngi ko féete kaw kër ak topp bànneex ak nay këri safara ak yooyu këri safara yooyu yëpp ñu ngi ko wër nga xam ne mën da soppaliku lu ay ci lu naqadi yàlla topp bànneex mooy yàlla bii dem ak payam rëy mer bugal koo xam ne waroo koo bugal moom mi ngi ci safara fi mu toog ba noppi di laaj safara lu mu ci yàkkam ci du safaraan ko wër wërale nañ aljanna ay yuñ fit wërale nañ safara ay bànneex li nga xam ne moo neex bakkan lu ko neex mu def lu ko neex mu wax loolu moo neex loolu mi ngi neex ci xalaat yi wante safara la boo ko seetee ndax safara la la jëlee aljanna nag ñu ngi ko wërale yi bakkan fit topp muñ topp ndigal yàlla muñ bàyyi tere yàlla muñ balaa yi nga xam ne yàlla nga koy wàcce loolu moom naqari na léegi waaye aljana la de ndax aljana la jëme yow ma yàq yow bés ba dina muur leen alaasa bu mbugal min fawqihim mu tukkee ci kaw seen wa min taati arjulihim ak tukkee ci suuf seen de wa yaqulu te dana wax malaaka ma doo ko xaraf leer maa kuntum tey la ngeen nekkoon tàmm la doon jëf ko de bés ba nga xam ne sànni nañ ko ci safara dëgg-dëgg woon nag malaaka ma nga xam ne safara naa ko xarafal nag fayal li ñu doon jëf ca àdduna ngoog de yaa baadi yéen jaam sama àll si nañ ñaa amoon gëm nañu dina ardi naka suuf sama waa sanatun aji yàlla mu de fay yaa man daal faa bu doon wéetal leen ma jaamu de kooku wàcc na ci digle gàddaay de ba nga xamee ne way doo di julli ña ña leen di lor ca Makka ñu tawat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne leen gàddaay leen de suuf si ana boo nekkee ci barab boo xam ne mën la faa taxawal diine gàddaayal dem boo xam ne mën la faa taxawal diine de ndax suuf yàlla si yaana de gàddaay nag tiis na ci bakkan ndax da ngay soxantikoog sa ñañ wàcc say xaral ak say kër dem loolu tiis na ci bakkan moo tax yàlla daal di ko xayma ne kullu nafsin bépp bakkan saa xatu moo koy aju mos la mu dee de su ma tur joxoon topp dee ma delloo leen yéen a ngeen jëm suñu te bu fekkee bëgg ngaa gàddaay sa bakkan bi naa la yaa ngi ciy bàyyi sa kër gi ak sa njaboot yeeg waaw sa ñooñ la nga xam ne da nga dee de waaw li ak yàgg bés dana ñëw nga dee génn sa kër wacc sa njaboot waaw te doo ko dellu de kon nag na nga gàddaay léegi waaw ndax nga taxawal diine ba boo dajee sa borom ëllëg fekk nga mucc de yonent na nga gàddaay leen ngeen doonaloo seen i doom teraanga de yàlla na ne man nga aji si sabi ay aji si dara mu raa saman kasiran wa saatan ku gàddaay ci diine yàlla yàlla dana ko jox dëkkuwaay bu yaa waa ak wërsëg moom moom àddina moom moom laa teral àddina jóge dem de foo mën a dem rek bu jaaxle wala dina ñaan amoon gëm nañu waa amee dañ jëf faale di farata ak naafila dana koy amee wallaay dana nu wàcce leen ñu ne jàll ci aljanna xorofan ay fàtte kaw te jiw dana daw ñu tàcce aji ko kenn naar yoon yaram xaalis dina bi mu ngi way déer ci ay tool ne ne ma baax na ak ñu amee dina yàlla mooy jëf rek ñi nga xam ne gëm nañ yàlla day jëf jëf yi yàlla dana leen wàcce ci fàtte kaw aljanna yoo xam ne ñooñu aljanna dañ leen di seen ni ci ñoom seen ci seen di di jaasamaan rek yonent na ne nekk na ci aljanna du ndax du ma leen solo fàtte kaw aljanna sax boo yoo xam ne da ngay gis bii ba biti ba du gis biti ba ba tiit ba yëpp yàlla ba tabax ak loxoom jàmb leen wurus jàmb leen xaalis waaw ba mat ñooñu aljanna lañ koy séentu ñu ngeen di séentoo di ji waaye nag kenn du ci dëkk lu may koo xam ne dafa dëkkoon ci lii guddi lépp waaw tey xiiwalam na yoo tey lele ñam waaw tey tey dakk soo koor rek ñu ne yonent loolu bu ko man mu ne sama xarit mën nañ ko koo xam ne julli na joxe ci mbooloo julli fajar ci mbooloo kooku julli na guddi lépp koo xam ne fu mu dajee julli bu mu dajee ne ko salaamaaleykum kooku siiwal nam na yoo koo xam ne yaa ngi leyal sa njaboot bi nga xam ne yaa ngi war a dundal ci yoon kooku lele na ñam koo xam ne da nga war a weeru koor at mu nekk te ci juróom benn fan ci korite kooku dafa soona koor de ñooñu ñoo moom kat yooyu ñu fendu alli si ñaanal sabaroo mu ngi leen lori xeefar ya ba gàddaay ngir feeñal diine waaye tawakkaluuna te daañu doxalu arab yi ci borom seen sant loolu dañ ko aasaf yàlla dana leen wërsëgal buñ ko jot sama doon de koo xam ne muñ na ba gàddaay ngir bëgg a taxawal diineem diine mujj rek ba taxawoon ci gàddaay yàlla doy am moom foofu de dana ko wërsëgal lu jot sama doon de wa kaayin bayna min daabatin ajnuka laa tahmilu enu ti muris taa wa sagam rek ba tey ma nga yakkam yam loo gàddaay bëri na vidéo moo xam ne yàlla ko bind te gàddu wërsëgam rek kenn gàddu sa wërsëg rek allah yàlla yàpp ko waa dama wërsëgal ko way yaa ko mag yéen yàllaay wërsëgal seen dund yi boole leen ci yéen itam woo moom sami moom mooy aji dégg seeni wax alaa di moom daa xam seeni jëf leen bul waxal innama loo teg wala in saaltahum wala ilam laaj nga leen man xalaqaka bind na mu samawaati asamaan juróom yaar wala laa suuf juróom yaar wa saxara sa tàggat na mu sam sa jant wal xamara weer la yaqulu na xam nañu wax ne laa wa yàlla fa ne yow sa kóol mu naka def ci sa beneen wani si wéetoon nag gannaaw bu ñu doone yàlla yàlla bind bi nii de xeefari seen jéem yëpp mooy weddi bi weddi yonent bi nit ñi doomu adama la ñu suñu tam de waaye ñoom ñëpp gëmoon nañu yàlla ñu julli ñu gëm yàlla boo leen laajee ku bind asamaan ak suuf tàggat jant bay weer ñu ne yàlla boo leen laajee kuy joxe wërsëg ñu ne yàlla waaw boo leen laajee ku mën a musee te kenn mën nga musee ci moom ñu ne yàlla loolu julli ñi seen a gëm foofu la yem xéefar yi gëm nañ loolu ba noppi te alxuraan nettali na ko li leen tax a doo xéefar mooy rek li wax ne Muhammad mi ne doomu aadama la ñuy suñ jam rek waruñ koo topp rek waaw yonent bi lañ weddi waaye ñëpp daje nañ ci gëm yàlla suñ gëmee yàlla nag ana fuñ jëm allah yàlla yàlla dina mu yaar di xaw a rafetlu ma ñëw si waaw ñaar bu mu soobee ne daal di ci jaam waaye ak dina tamit jiital la ñaar ko rek yàlla nag moo joxe wërsëg ku ko neex mu jox la wërsëg bu bari ku ko neex mu jox la wërsëg bu tuuti rek xam na jaam jaamam bu nekk xam na lay maslaa ci moom. yàlla na ne am na sama jaam boo xam ne ñàkk rek ko mën a yéwénal su su ma ko amaloon mu yàqu am na jaam yoo xam ne koom rek ka leen di yéwénloo suñ ñàkkoon yàqu. ku nekk nag yàlla dana la jox la nga xam ne mooy tax nga mucc rek moo tax muy yaar wërsëg ñaan ñenn ñi waaw xatal wërsëg ñaan ñenn ñi def wala in saaltam wala indem laaj nga leen man na sala koo ci la mi ne sama ay tukki jaaw sama maanam taw fa ayaatam lu dal di joon la rasul min baadi mawti aaja gannaaw ak deewam gannaaw ak woom la yàqul na xam nañu wax laa la de yéefar boo leen laajee kuy wàcce asamaan kuy wàcce taw ñu daye ko ci wàllu asamaan laaj la wax ne yàlla ko wàcce rek de moo naka ñu sakkar yàlla bokkaale nag kon waxal atam doxal ci yéen si yéen nga ilaa ji nak la ñaar yàlla de bala bayit ak soroon ko nga bëri seen laa soroon ak soroon ñu de ñoo xare waa di jënd seen fikkirente wax yi yàlla bind yàlla moom bana fi ñuy jaamu leneen lu ñu moom kéefara ñàkk xam xel bi te kéefar ji maanaam jikko lu may ci Muhammad war na doon yonent bana fi ñu dem di jaamu doj ku doj mën a doy yàlla jëm ku mate ni yonent yàlla Muhammad mën mën nga nekk yonent yàlla ñoo xare waa di digg wa ma haazihil hayaatu dunya déer bi dund àddina illaa lahwun la pontu la wala yeggu nag po àddina du dara lu may forag lu may loo xam nag ne jaamu yàlla la nga xam ne meññetam da nga ko am ca àllaaxira de duniya yonent na ne luñ rëbb la luñ rëbb la lu ne ci moom lu may ku xam ak kuy xamlu ak kuy déglu ak koo xam ne xëpp na leen de dellu wax yenn xaddi xaddina lu ñu rëbb la lu may tudd yàlla ak lu méngoo tudd yàlla way na daara naka kër ga laaxira sa gëre aljanna lay yemoom ala ayaanu moo di dund rek kër ga tigi moo di aljanna rek moo ab dund la aljanna yàlla dafa ko seen kattanoon ma nga xam ne lépp lu fa nekk luy dund la amul jamono law kaanu donte nag kon yaara moo di xam naa laaxira mel naa aljanna mel kon tànn duñu àddina de su seppoo yéefar yi xam nañ ci ñu naan yàlla mel walaay wala duñu tànn àddina mu àddina moom amul benn solo li ñuy kër këree ci àddina yëpp nit boo xamee ne àddina yi téem yaari dafa ko set benn mu dajale àddina ba mu bëri àddina ja dem tasaaroo ci loxo mu mujj ñàkkale na nit mu saam wala mu dajale ko ba mu bëri moom mu delloo ci loxo tere moom ko yooyu yaar ko xoomal ñu ni koo jaar mukk te soo seetee itam mbir mi nga xam ne bakkan aajo na ko tigi te teew ne ku ca ku xoomal ak ku ñàkk ñooyam jàpp jaar dina rek lu nit xoomal xoomal lu nit bërile bërile lakku xiif bi gisa biir bi la am ci boo ko fee am sagar boo teg ci sa kaw di noppi ci jaww ji lu nit liis liis loolu rek la am jaar dina di lekk di naan di wàddu di noppi ci jaww ji amul na ku ñàkk maami ñàkk bee ba giseet yàlla du ko jox ci bum tax ma am sagaram bum teg ci kawam di noppi ci jaww ji te kenn du ko aaye mu ba gën a bew waxagul lu jëm ci jaww ji waaw gouvernement yi gën a mën a tege tax waaye tegaguñ tax ci jaww ji balaa kenn noppi fay loolu bëri de bëri de loolu nga jaam lu ñu ñàkk ñàkk itam am na loolu de kon nag ana na ci jar waaw xam léegi yàlla de dajale ba mu bëri defe naa yaa ko moom rek ndekete kenn na ko moom su ne gis sa loxo te soppandikoo ko nag kon mi ngi mel ni yaa ko moom te fekk moom loo ko def boo lëgee nga dee sooy dee rek taawal bi nga gunge xaw ba nga génn sa néeg te idaa rakk boobu ndem war nañu fil ful bi ci gaal daa am ñu xool laa yàlla daa am ñu ñaan laa yàlla mu xool dina nit mu jooy sa loolu ñaan ko dina ak ñaan soo xamee tukki nañ nag ba dugg ci gaal yi ba tegu ci kaw géej gi gis bu géej naqadee ba nga xam ne ragal nañ ne dañuy foofu dañuy fàtte seen yàlla yëpp ne lii kër yàlla rek ci man taxe ñu jàngoo nag ne yow yàlla walluñu wala ma na jaawum ba mu musalee leen di leen bari jëm ci jéeri jee isa am si la fekk sir ko dana mu ñoom yi sir ko dana ñu bokkaale soo xamee ne mucc nañ nag ba jëli fi jéeg ci jéeri jee xam ne raw nañ géej gi nag ñu daal di yaatu dellu dellu addi jaamu xerem yi de léegi pro bi nañu weddi naa de naa am lan jox leen ci xéewal wala yaa tamit ak ngir nañu yóbbu ci jaamu xelam ba soo fa yàlla mun a xam ne ñoo xam ne lay wàcc ci ñoom ëllëg jaalaxira de awalam yaraw ndax dañoo xamut anaana ka nun jaana def nañu xaraman xurum amin ngir borom ko lëre yàlla du moo def xurum bi ca Makka def ko muy xurum ji xóolu xelam buur lum bew bew daju takk xare jëm Makka ku fa daje woon ak ku rey sa bàyyi doo ko gaarlu woy fa xattawu te def ne fukk naa suñu ñun aw diin ci réew seen nga gis réew yi nag la fa xew reyante ak jàppante rek moo fa xew lu mooy makka afa yow mi ne danañu gëm di baati ci xerem way ak puroon dañuy weddi bi ne ma di laay ci xew rek yàlla googu dañuy dem di jaamu xerem ca makka waaw wacc yàlla li nga xam ne moo leen defal makka muy wërum wa maa samu def kan di gën a tooñ lu may straté te dugg na ma waawal yàlla kasi ba nar de ba di ko sàkkal bokkaale aw ko sama ike mu weddi bi la bi la xëcc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam de la ma jaawoo ba mu dikkalee ko waaye alee sa si jaanama ndax dee dina ci jaanama mason tapp waay dil kafir na ñaar way weddi ña maanaam anaam waaye xéefar fee boolu ko neex mu def ñu tëng waaw caay caay yee suut xéefar waaye bugg nit yee suut jaanama de toj topp lañ jëm de na ñaaña jaadu diina ci sunu xaqanun yàlla lanaa di annahum wala ay dana mu jubateen subulanaa yoon sunu de yàlla na ne ñi nga xam ne jaar nañ ci man danaa leen jubal yoon wu jëm ci man de ñu jaar yàlla dana leen jubal ci yoonu ndimbal ak ak manga ak sey dem aljana wala si na ñaane jaadoo jaar nañu fii naa ci nun ñu jaar ci sakku xam-xam danaa di yaanam dana nu jubal leen subu lanaa yoonu jëm ci xam-xam sunu ñu jaar ci sakku xam-xam yàlla dana la jubal ci yoonu xam-xam wala si na ñaane jaadoo jaar nañu ci sakku jegeñ yàlla danaa di yaanam dana nu jubal leen subu lanaa yoonu jëm ci jege sunu wala si na ñaane jaadoo jaar nañu te soobu jëm ci yàlla ba nga xam yàlla lanaa di yaanam dana nu jubal leen subu lanaa yoonu jëm ci téye sunu de su soobu itam daañu ko jubal baye bu ko ci def bu de jaar ci yàlla ngo ku jaar ci yàlla rek yàlla dana la jubal ba nga àgg ci yàlla ak loo mën a sàkku ñuy sàkku yoolal yàlla yàlla dana leen jubal ñu àgg ci yàlla ñuy sàkkoo teew fa yàlla yàlla dana leen jubal bañ teew fa yàlla soo ko ne nag gis nañ kuréel yu bëri ay murid yu bëri yoo xam ne ñu ngi jaar ci yàlla te jëriñu ma ne bul fàtte fii naa de dañoo bàyyi jaar ci yàlla dañoo jaar ci jëmmi leneen lu dul jëmmi yàlla ja ñooñu ñoom duñ mën a àgg ci yàlla balaa jaar jaagale jaar bi ci yàlla nag ba nga xam ne jaar bi ci yàlla la da ngay jëkk a gëm yàlla ci boppam nga xam ne bëgg yàlla rek moo la tax di jaar loo ca mën a dolli nag nga dolli ko ca kon laa budd da ngaa di def yàlla ba de waaye soo wàccee yàlla fa la nag di jaar ci waaw jëmmi keneen ku dul yàlla ku mën a doon muy ñuy ñuy def jaar te Isa la ñuy jaamu ñuy def jaar te leneen la ñuy jaamu ñooñu dañu àgg ci yàlla ndax fii naa ji lañ bàyyi. way na laa naka yàlla damaa mos yéen a ji naka la ànd ak way yéen ña def yàlla nga ànd ak way yéen ña def boo jaar ci yàlla nag boo jegeñ loo yàlla sabre moom mu jegeñ lu la xasab nga jegeñ lu ko xasab mu jegeñ lu la ñaay soo doxee jëm ci moom moom mu daw jëm ci yow. kon fokk nga àgg ci moom de yàlla nga ànd ak way xéwénal ña xéwénal nag firi muy firee nañ ko waaye ni ko yonent bi firee dem an tabuda laa ka annaka taraahu ngay jaamu yàlla mel ni yaa ngi janoog moom de